bu ñu waxee mu naan sama maam yonent bi dugg na fi génn fii man ma ñëw ma fi pour attaquer waa Yewwi Askan Wi parce que su ma ko war a défendre da nga koy waaye il faut que mu mu modeste tuuti toog foo toog wax man bi lii ak lii léegi nag kenn fii kenn duñu fi kenn man nii sama papa démb ba euh, semaine bay mu wax ma loo xam ne sama maam sama maam man bu ma ko fi waxoon fii billaahi wallaahi taala di nga ne ah yow si yax bu dëgër nga bokk barki rasulullah te doo doo dégg ma toog naan sama maam moo def moo moo moo def te te ci bëri ci ñun ku ci nekk am na lu def am na ku wax ba ci dem rek nee na maam def moo doon mu naan sama maam moo doon jàppal xaw ma sëñ bi sa talaam xaw ma et cetera et cetera Ahmed Aïdara na bàyyi di wax sama maam yonent bi sama maam nee na lii sama maam nee na la fii kenn gënu fi kenn amul maam amul kenn gënu fi kenn ñëpp ay citoyen rek affaire loolu li ñu war a jël Ahmed Aïdara il faut dëgg il faut mu wax dëgg il faut que mu modeste tuuti waaw ñun man dama koy défendre chaque jour dama koy seetaan revue de presse dama koy affaire Gabriel Kane bi ci moom laa ko jàngee mais il faut que mu modeste bàyyi fu mu toog jox sama maam yi sama maam laa yonent bi te kenn gënu fi kenn man nee naa leen bu bis dina ñëw sama papa dama ko enregistré bis dina ñëw ma tegal leen li sama papa wax sama papa il a cent ans fi ma bokk man te bu ma ko fi waxee ñëpp xam fan la mais bu ma ko def parce que c'est pas ça qui nous intéresse sama maam bu bu bu bu nekkoon sëñ Touba. te man defuma li sëñ Touba wax wala mu nekk élèvement euh, te élèvement bi li man defuma ko wala ma nekk moom bokk ci yaxu yonent bi te man defuma li yonent bi wax yow sa maam nekk yonent bi war na fi nekk di xëccoo ay poste président de l'Assemblée nationale lañ waxante dëgg man de bu ma leeroon ne ci ci sama deret deretu yonent bi laa jógee euh, euh, directement dinaa fi nekk di xëccoo ay président de l'Assemblée nationale waaye dañuy nax loolu ça ne nous intéresse pas ay ay man saa yu ko ma bëgg ñuuf gars yi naan ko Chérif ak Chérif ak kan moo amee ay dara nekk Chérif ah, yow sa maam bu nekkee euh, euh, euh, yonente bi te yow wàccewuloo alxuraan mais comme ah, am na lu des ah, man de dama jàpp ne xëy moom war na mën a wàcce alxuraan xanaa donc affaire bi du du fi nga bokk ak fi nga jóge comprendre du fi nga bokk ak fi nga jóge amee ay loolu taxul ñu def la maire Guédiawaye li tax ñu def la maire Guédiawaye du du question sa maam yonent bi mooy sa maam xëy na sa maam la mais c'est bien mais ñun loolu taxul ñu def la député xam la moo tax ñu def la député da nga nekkoon da nga fi nekkal askan bu la neexoon nga dem ànd ak Aliou Sall parce que dégg naa Aliou Sall jëm na la xëcc bu soxla yaa neexee bu la neexee nga dem bokk ali Sall bokkoo ci Aliou sal di def sa émission askan bi dina dégg ngay def ay tës. affaire Adji Sarr gis nga li mu si def certificat médical bi yaa ko njëkk wax dangaa liggéey troisième mandat da ko fi teg sonal Aliou Sall huit huit huit xeeb la yaakaar ne mënoo ko gañe Aliou Sall da soo ko jàppale nga gañe Aliou waaye Aliou bu xamul li mu xam bu la xeebuloon ñun gëm nañu ni ñun ñoom ni def ba gañe euh, Pikine mën nañu ko def ba gañe Guédiawaye c'est preuve Guédiawaye gis nga dafa am ay problème ndax Guédiawaye ngi

bu la neexoon nga dem ànd ak Macky Sall ànd ak Aliou Sall gàkku bu ko neexoon fi bàyyi askan bi dem ak Macky Sall sa bopp nga ko def waaw ñun daal man li ma leen lenn la rek mooy ne ñun on a yow askan bi billahi wallahi taala on vous a askan bi on vous a à l'œil fii képp defu leen seen bopp ngeen def ki ngeen ko seqal.

yow nga gagné yow nee nga kii 74 député rek la amoon yéen a ko wax de clair loolu wax na ko yéen itam wax ngeen ne Macky Sall 74 député rek la am la amoon ngeen fexe ba mu imposé na 82 ba pare fokkati fokkati Pape Diop mu ñëw bokk ci moom mu ñëw bàyyi Pape Djibril Fall muy leem leemi Pape Djibril Fall di leen leen loolu yëpp Macky Sall moo ko def lan moo tax Pape Djibril Fall mënul ñëw dëggal boppam ne man fii laa bokk lan moo tax Thierno Alassane Sall mënul ñëw bokk ne ci opposition bi laa bokk lii moo tax Sénégal du dem yéen nag activistes yi ngeen nekk à l'eau à l'eau nekk aux États-Unis di saaga fii Macky Sall lii Macky Sall la lu ne ngeen dugg ci def leen lii def leen lii mënu leen dugg ci dëkk bi lu tax parce que ñoom Alassane Sall la ñoom Thierno Alassane Sall ku nekk sa intérêt ngay xool je suis de l'opposition mais mais je suis de l'opposition mais je suis de l'opposition mais je chantage mais Sonko chantage son chaque son son chantage son Sonko dafa joxe opinion